ñu tuddee suñu kuréel gi jigéenu Bamba yi amoon initiative ci université bi euh, pour jàppale ci suñu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountaha Bachir. fii ñu taxaw tey euh, xalifa bi jox nañu ko pour jigéen ñi ànd taxawal restaurant bu université bu Touba euh, ma ci woo jigéen ñëpp bàyyiwuma kenn ñu ñëw jàpp ci liggéey bi suñu doole suñu mën-mën suñu kàttan lépp rek ngir jëmmal lislaam lépp rek ngir jàppale suñu xalifa bi nga xamante ni lépp lu mu am rek euh, diine lislaam moo ko ko gënal te it ku ne xam na ni mënul nit àdduna mënul dox te lislaam taxawul kon ñun jigéen lim ma ko waxee woon rek moom xalifa bi université bi bu ngeen ci demee da ngeen a dem ci seen yëf ku leen ci fekk da leen a fekk ci seen yëf gannaaw ñëw ngeen fii bëgg cee dem kon dem leen ci seen yëf ñaanal naa leen ci am ngeen ndigal li doxee leen noonu ma di ci wooye jigéen ñëpp nag bàyyuma kenn ñu ñëw jàpp ci nag jigéen ñëpp laa si woo ñu ñëw jàpp ci ñu taxawal restaurant bi liggéey ko ba mu egg def matériel bi war a nekk ci biir yëpp ci biir euh, restaurant bi jébbal xalifa bi caabi yi loolu mooy suñu mbébét di suñu yéene di suñu bëgg-bëgg lépp def ko ngir rek jàppale sëñ bi ci taxawaayam ci diine ci taxawaayam ci lislaam ci taxawaayam ndax euh, lislaam bu taxawee yar taxaw bu yar taxawee àdduna bi jub te xalifa bi loolu moo ko yitteel loolu mooy soxlaam kon loolu mu nekk te fu ngeen ko toll fu mu toll yéen a koy dégg mu ñuy jàjj ñun jigéen di ñu tere lu nga xamante ni suñu diine daf ñu ko tere ngir bëggal ñu suñu lu baax tey ak ëllëg kon loola ñun doo ci war a daw jiitu si ñu ñu ma di ci woo ñëpp rek ñu ñëw jàpp ci liggéey bi bàyyiwuñu kenn nag ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo nga xamante ni am nga ci loo ci mën a def fu sa doole tàmbalee ba fu mu fu mu yem nga ñëw jàpp ci liggéey bi. tijji nañ numéro compte bu nga xamante ni jaayante yi fa lay dugg dinañ defar ay carte de membre dinañ def ay carte barkeelu euh, pour que ñi nga xamante ni euh, bëgg nañ cee def seen loxo. ñu def ci seen loxo ma di leen xamal ne leen tamit liggéey bi dafa am durée. te ku xool université bi gis ngeen chantier yi ci ginnaaw mhm. am na ñu commencé ma bëggoon rek ñu def lépp lu ñu mën rek ba nga xamante ne durée bi ñu jox mhm. euh, ne duñ ne bala ñu cee yegg ñu yegg ca waaye bëgg nañ ñu yegg ci durée boobu euh, avant durée bi deux ans la mhm. durée bi deux ans la déjà euh, deux mois jàll na te defaguñu pose première pierre ndax activité yi commencé gul woon ndax bi ñu amee ndigal ñu ngi ko am le 6 novembre passé kon ma ci wo jigen ñep nu mu gëna bare nu mu gëna gaawé rek ñu def loolu jëmmal ko ndax bu ci yi ci ginaaw di pare tombeek ñun bu ñu wutit ñu sori ba nga xamanteni ni duñu yakamti wala ñun duñ leen tardel ñom wa loolu moy yene bi ni ma ko waxee woon ma ci wo ñep rek restaurant bi euh, euh, ndaxte euh, lépp loo gis rek da ngay commencé ci ben ba ba nga xamanteni ba fa nga bëgg yam Euh, ndax restaurant yi ñetti restaurant la léegi nag ñun bi ñu demee ci xalifa bi bi mu ñuy ñaanal mi ngi ñu ñaanal ci restaurant bi nga xamante ni 89 millions la léegi ñun dañuy jël restaurant boobu nga xam ne 89 millions la des na fi yeneen ñaari restaurant yu nga xam ne benn bi 120 millions la benn bi 800 millions la d'après euh, sëñ maam Thierno mu sëñ Moustapha Bassirou noonu la ma ko waxee woon noonu la ma présenté woon plan yi mu ne ma boo ciy jël ma ni ko comme dama ñëw ci kàddu jigéen ñi kon bu may dem naa jël ci bu gën a ndaw ñu tàmbalee ci boobu comme ay jullit nañ nag ay jigéen lañ te ay murit lañu xam nañ ni suñu soo songee yeneen yi dinañ ko yeggale waaye nañ commencé ci bu 89 million bi di jàll di jàll ba waaye ñun am na yéene liggéey yëpp.